asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV kon ñu koy defee à chaque fois tey nag ñu ngi fi géej ñëw seeti champion xale boo xamante ni macha allah dëkk Pikine am fa cër mu nekk koo xamante ni gars yëpp dañ koy safoo ndax ci lan ci disponibilité am ak ci li nga xamante ni moom mooy ci kàddoom muy Onde le Fou mais bas avant loolu dafa koo xamante ni mën nañoo wax ni dafa bokk ci àdduna koo xamante ni national international. muy suñu papa El Hadji Golbert Diagne di ñaan yàlla euh, fu mu jugee fu mu jugee dàqal ko fa mu jëm mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla nee naa leen la presse nationale ñëpp ñoo ñàkk mu nekk koo xamante ni ku julite ndax am na documentaire yu bari bërki déem boo njaay gis nañ ko ndax dafa waajal boppam mu nekk ku gëm yàlla ñu ciy jaarewaale ki nga xamante ne moom mooy suñu confrère muy Malal Junior Diagne di ko jaale ñëpp partout dans le monde loolu benn parenthèse la parce que tamit ki fi jóge nekkul n'importe qui Onde le Fou la ñuy jox mu nuyoo ñu àggee yi nga xamante ni moom mooy waxtaan bi ndax fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy euh, écurie ak ci li nga xamante ni instant moom mooy arbitre ak waa CNG ak li nga xamante ni moom mooy ci carrière dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu continuer waxtaan bi Onde maa ngi nuyu asalaamaaleykum Fatma salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant comme ni ma koy defee sama lim national di nuyu sama yaay Ndey Mari Géwél sama yaay Aminta Darame Mari Ginaaw Raay nuyu laay Kapo Chérif Diène Moussa Yande ah Alaaj Sëy waaw ñu koy wax booy Jolof maa ngi nuyu di nuyu Ndiaye sama xarit sama doomu ndey Karbala sama xarit sama doomu ndey maa ngi nuyu waa Pikine yëpp waaw di ñëw foofu nga wax noonu muy suñu papa Golbert yàlla na ko yàlla yërëm. ndax nit koo xam ne nii modèle la woon ndax moom bis bi bett ko quoi ndax yaakaar naa ni waajaloon na ko bu yàgg ku dem ba defar këram wax ni na ngeen ma denc fii kon moom pare woon na lii ci àdduna quoi yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na dajeeg yërmande suñu borom di ko jaale Malo Junior Diagne di ko jaale waa Ndar yëpp xam ni Sénégal perte na di ko booleeg tamit Pape Diouf moom tamit yàlla na ko yàlla yërëm ndax ñooñu ay ay référence lañ loolu bu ko réew ñàkkee rek ñàkk na lu diis quoi. Mm-hmm. maa ngi lay bëggee. waaw nuyoo bi am na solo kon li mu wax rek képp ko koo moo tax euh, Basiru nu ñu koy waxee rek kenn ku nekk na waajal boppam ah. te li ñuy wax rek te gën a te gën a jaamu yàlla parce que instant bi ku jaamul yàlla perte nga ndax euh, am na balaa boo xam ni dafa wàcc suñu kaw ñu bari daan na nii ab ah, benn balaa la muy coronavirus di ñaan yàlla rek yàlla yàlla mi ko fi indi mu yóbbuwaat lépp lépp lépp euh, dëkk yi nga xamante ni fa la am dëkk yoo xam te ne domine leen yàlla wàññi lépp ci barke Seydina Mohamed di wax gars yi rek nañ gën a jaamu yàlla dara xas xol yi mu doon benn li may wax rek parce que instant bi daal misaal yàlla mi ngi woon boppam kon nag ñun comme que yàlla mi ngi woon boppam rek ñun daal nañu profité ci occasion bi xool lu baax yeneen te jàmm di waxtaan te bàyyi fu caaxaan yi ndax instant bi nee naa ku ko def rek wax dëgg yàlla daal mooy loolu bas Onde le Fou waaw ah, corona waaw mhm. ah, corona les porteurs de coronavirus maa ngi nuyoo tamit sama doom nday ji maajoor ak njigéen ñii nii tuuti wu ñu ci man kowaa waa damaa bëgg ngeen jëlal ma leen ñii nii parce que dañoo bàyyi seen yitte ci suba ba léegi ñëw di la fi xaar ndax kan man boobu ba léegi tamit bu ma leen waxee dañ naan ma Onde nekkatul yow kase musul nekk man kase sax mais na guddi yu ñu toll nii ñoom mënuñu maa bàyyi ma dem quoi lépp lu may dugg dama ciy waxtaan ak ñoom ñu may conseillé di ma ci génne kon aw ma seen fay muy lay waaw kii moom mbër la ñëpp ko xam mooy booy jolof xam ak njaay mee ci ginnaaw Karbala sama doomu nday laay Kapo man awma seen fay quoi njegeen mi maa ngi koy sant bu baax xam ak doomu ndayam xam maa joor maa ngi bëggee ñëpp waa naa bi nag natt bu fi yàlla wàccee la. mais ambassadeur kii des fois nga ma juumul. waaw ni may sensibiliser mooy comme ni li ñu wax rek ñuy ñuy ñuy topp santaane yi moytu tere yi mooy raxas sa loxo foo toll di set loolu lislaam jàngale na ko bu yàgg te beneen xeetu diine bu dul diine lislaam tamit loolu ñëpp a ci bokk tombe mooy nit dafa war a set xam nga moytu li ci des ñu ñaan suñu borom mu jëlee ko fi yàlla moom moo fi indi jàngoro ji na ko fi jëlee mais tamit damaa bëgg ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ŋànk nguur gi ñoom ñu jàppee ñu ay nit quoi parce que ñoom ñun ñoo leen fi teg. man mënuma comprendre tey yow nga nekk nit koo xam ne nii askan bi moom moo la fi teg ñu ne lan la ñuy joxe pour askan bi ci nga li nga xam ni moom moo war jëm ci feex xeetu feebar beeg affaire yooyu ay ministre ñu leen di dagg ay un million ñii ñu leen di dagg ay deux cent mille te ñoom seen jàngu doom yi ñun ñoo koy fay ñun ñoo tax ñoom ñu am passeport diplomate ñoom seen jabar yi ñun ñoo tax ñu leen di fay ñoom gënuñu ñu ñun fi ñu nekk ñun ñoo leen fa teg. Barthélémy Dias mi nga xam ne mairie rek la yor cent millions la joxe xama kon ñoom bu ñu jàppee benn nit koo xam ne ko demoon sa compte am na lu ëpp loolu mais jamono jii lañ soxla ñun ñu ñu delloo ñu monnaie bi. mu yéen malade adduna bi yëpp. Sénégal yëpp parce que man damay wax fi mu toll nii d'une manière générale. ñoom bu ñuy jàppee ay golo Macky Sall dafa am caisse noire. caisse noire bi na génnee xaalis bi parce que yeneen président yëpp dañoo gis ñu génne parce que c'est le moment jamono jii lañ ko soxla parce que nit ñi ñu ngi leen confirmer confirmer la ñuy wax ñu ngi leen di confirmer xaw ma con confiner tëj leen ci biir néegi nit ñi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan parce que nit ñi bu ñu demee ba ñu ñu leen di wax toog leen seen biir kër yi police yi di leen dóor c'est parce que dem nañ ba ragalootuñ dee xiif moo gën a metti corona corona mën naa ñëw faagaagal la te doo ko yëg mais xiif dalay dalay souffrir loo nit ñi ñu ngi tëju xam nga di dund lu metti société yi nga xam ne ñu ngi fi muy orange di tigo di yeneen société yi ay milliards la ñuy gagné bu doon yeneen dëkk yi boo demee yeneen dëkk yi bu ñu la waxee li ñu fay joxe da nga naan non non moo tax ñun mënuñu ñoo respecté te suñu xaalis la ñuy dagg mais ñun ay ay ay ay nit lañ quoi bu ñu jàppee ay golo sama mbokku moodu moodu yi tamit kaaw maa ni maa ngi leen di masaw bu baax parce que lii leen dal nii metti na trop. feebar fekk la sa dëkk sax moo gën feebar fekk la ci àll bi parce que ñoom yàgg nañoo joxe dépasse te duñ ci lekk yàgg nañoo fay luyaas boo xam ne nii dëkkuñu ci kër gi xam nga metti na torop maa ngi leen di ñaanal ñi mu dal yàlla nañu wér ak jàmm ñu nekk foofu dalu leen yàlla na yàlla bu mu leen dal ñu nekk fii yàlla nañ toogaat ba feebar bi wér ñu dellu si waat ci seen liggéey affaire bi gën a dox maa ngi masawu Sénégal yëpp coono waaw loolu laa amoon loo xam ne nii corona war naa ko cee wax mais xam naa dangaa bëgg ma wax ci dof yi <laughs> xam naa Fatma. damaa bëgg ma wax ci dof yi. waaw loo bëgg ma wax ci dof yi. mais mais après loolu dinañ ci ñëw. très rapidement dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy sa parcours. ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy sa parcours su ma juumul 17 combats nga 14 victoires 3 défaites ah su ma juumul. ëpp na ko ah. loolu lañ la bindal loolu lañ la wax. ëpp na ko après dinañ ci ñëw mais sa parcours Onde le Fou mooy kan. waaw Onde le benn booy la boo xam ne nii mi ngi yaroo talib bees mi ngi juddoo Kayaar yaroo talib bees màggee ginnaaw raay benn booy boo xam ne nii woon na trop bi muy dugg ci làmb yaayam bugg ko woon kenn bugg ko woon moom mu xaacul boppam mu dugg ci. mu dugg ci nag souffrir ci ci ay coono yu metti ba egsi fii mu egsi fii waaw xam naa ne yaakaar naa man wax ci man jafewul parce que man wax naa ko fépp président Macky Sall ma daje woon ak moom Onde le la may wax. waaw onde parce que tey géej gi moom la tubaab di wax wave wave bu fekkee jàng nga école boo demee PC dañ lay wax les ondes magnétiques tu connais les ondes magnétiques. onde man jàngalewu ma. léegi euh, nu mu tudd man lantiwu ma fi kiiwu ma léegi léegi noppil ma tegal la. léegi onde onde laa lay wax onde. onde mm-hmm. américain moom lay wax wave wave mooy vague yee ngay dégg ne ci géej gi ñuy dal. boo demee PC dañ la wax les ondes magnétiques après nag nit dafa am onde boppam onde ci wàllu boppam li muy doxal dafa bëri parce que micro bii ma yor nii onde moom moo koy doxal quoi ay moom moo koy doxal ay mi waaw micro onde loo gis daa am lu koy doxal nit nag onde moom moo koy doxal moom ci wàllu boppam ndax ku nekk ak fi sa onde di jàpp des fois ñu jàpp la foo xam ne ni sa onde bi day changé dem feneen fudul fii des fois nga yóbbu sa onde bi feneen fudul fii yawit kon onde li mu onde li mu ëmb dafa bari quoi. waaw loolu rek émission la onde bi rek. fuu bi nag benn benn benn affaire la boo xam ne nii ñun biñ ko defee ba pare dañ ni pourquoi pas ñun ñu am ñu ñuy teewal parce que nit ku nekk booy dund ci sa askan war ngaa jëriñ sa askan. le fuu waaw le fuu bi fuu bi parce que nit bu nekk day am looy jëriñ sa askan. nan man nag aw ma xaalis bu ma jox askan bi xëy na ma dee wax. am na ñoo xam ne nii ñoom ñoo ma ëpp xel dàq maa wax léegi man ma préféré jëriñ sama askan ci ñi nga xam ne ñoom seen xel neexul. te ñoom mënuñoo toog waxal seen bopp te loolu nattu la yàlla moom moo koy tegaate. te yàlla mun na koo teg nit ku nekk te moment bi mu la koy teg nekkul dalay tàggu man mën naa jékki-jékki gën a dof parce que man dof laa ba pare. bu baax. mais nag wax naa fi ñu may fajee man sama sëriñ day faj dof muy sëñ njar lañ may fajee sëñ góor ja looy xaar looy xaar ba xaar man wax naa ak moom temps yii mu ni ma nag boo dofee fexeel ba na nga nekk dof bu yaru parce que am naa fi ay taalibe yu bëri doole yoo xam ne dañ lay yeew dóor laa dóoru dóoru dóor ma maa ngi koy nuyu o pasa sëñ bi di nuyu kër yi nga xam ni yëpp dañuy faj nit ñu nga xam ne nii wérul waa Mbaaw Fann waaw ak ay dëkk yi nga xam ne nii ñëpp dañuy faj ñi nga xam ne nii seen xel neexul ak ñi nga xam ne am nañ ay yaay yu dof ñi ay doom yu dof ñi am ay mag yu dof ñoo ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu tamit ñi nga xam ne nii dofaguñu ñi nga xam ne ñu ngi ci yoonu dof ak ñi nga xam ne dof nañ tamit ba wér maa ngi nuyu ñëpp waaw maa ngi leen di bëggee di leen wax seen xarit seen doomu ndey a ngi nii. <laughs> ba ba xelu dof bi di ñëw nga dóor ba. non lépp mën a nekk parce que wax naa ko fii nee naa la jàmmi dof neexul ayu dof neexul ndax man bu ma sama rab yi ñappaaxoo mën naa lu ne. sama rab yi mën bu ma tëyëxee moom mën naa def lu ne mais yaakaaruma tey mu tëyëx ma ci dóore tey moom yaakaar naa ci normal la may tëyëx pour moo wax ci. am na solo ci turu Onde le Fou bi Onde <laughs> Onde Mbapat waaw mbapat naa bëri naa ay quelque mbapat. quoi mais ba ngay mbapat tuddoo woon Onde bi njëkk parce que daa am ñaari mbër yu ma faawoon kenn ki Baaba Naar la kenn ki Njaga joob mais kan nga tuddee woon sa bopp ngay mbapat. ñoom ñaar ñëpp laa tuddee woon sama bopp mais ñoom ñaar ñëpp delloowuñ ma sama sama kii damaa tuddee Baaba Naar sama bopp. après gisuma sama bopp ci moom ma bàyyi ko après ma tuddee Njaga Jóob sama bopp Njaga sama combat aki Akim laa changé sama tur. léegi après Ndiaga Diop ma dem fa di wax ak moom mu may jaay affaire grand champion naan ma ay après ma wax ma xam ne nit nag bëgg moom yëg a koy faj nit moom bu la bëggee yëgoo ko ma bàyyi la man moom sama yoon nekku ci. Mhm. ku ma bëgg yëgoo ma ma bàyyi la man. kon daal yow ba nga tuddee sa bopp. Ah. ñaari la. ma bàyyi leen. nga que yow fu faale nañ la. waay fu fu ñoom duñ la kii. amul jotu kenn xam nga dof. gis nga wàll yu bu dee ñëw ci àdduna sax moom ci wàllu boppam moom melokaanu nit ku wéerul lay ñëwee moo tax ñu ne la ko gis na nga ko respecté koo gis na ko jox cër ci àdduna koo gis na nga ko respecté parce que nit ku nekk kenn xamul lan la yàlla def ci moom quoi tey bëri na ñoo xam ne nii ñu ngi dox ñu teg leen ay dof te nekkuñu ay dof xam nga dof amul jotu kenn dof du jëw du fen du sàcc yoonam nekku ci li mu sentir la naan tell ci digg bi mm. après yow noo ko gisee wala noo ko jàppee noonu la. mais li mu war a wax wax na ko wala li mu war a def def na ko mais tey nit njaay ngay gis mu dem ba tàmba Kolda yóbbu fa turu nit ne booy jolof mii maa ngi moom ñoo bokk écrit damaa bëgg ngeen liggéeyal ma ko mu bañ a daan kenn nit ku wér mooy def loolu kii maak ngi moom ñoo bokk société nag moo ko liggéeyal mais dof amul jot boobu dof ak mandikat mandikat bu la meree day dem mandile la ñëw wax la lim la wax dof bu la meree fi mu meree la la koy waxee après mu jeex ci moom mu dem mu dundu leneen jeex. mais yow changé sa tur danga ne bëgg yëg moo koy fay ñee dañ laa faalewul loolu moom moo tax nga changé onde bi euh, ñi nga tuddee sa bopp léegi yow bëgg yow koy fay léegi fuuy bu fekkee yëguñu la da nga leen fay teg dem seetiwaat ñeneen. wana yàlla laajal ñii ñoom bu ñu gisee dof ci mbedd mi sax ond lañ koy woowee xam la nañ wax ond a ngi nee de ond. mais ñoom ba xam faal yow yaa wax léegi bëgg yow koy fay léegi ñoom buñ la kiiwul nag buñ la faalewul. waaye ñun dof yi sel xam lan la ñuy dund self men men ñun carrière solo la ñuy dund ñun ci suñu wàllu bopp en tout cas daal bu ñuy dund ñun dañuy dox suñu doxu bopp di def suñu yëfu bopp. mais nag bis bu génn ci tali bi jotee dinañ génn parce que wax naa ko Macky Sall. non répondrul sama maa ngi ci question bi. parce que tey da nga ni ma est-ce que fuu yi faale nañ ma. mais fan la fuu yi nekk tey ñan ñooy fuu yow dof nga. Eh. dof nga kay dof day reetaan yaa ngi nii di reetaan dof day lekk day naan day nelaw Macky dof la. des fois day wax ay wax yoo xam ne da lay wóor ni kii li muy wax nii waxu dof la tëj bii mu ñu tëj nii yow boo ko imaginer loo koy jàppee yëfu dof. nit ñi war a doxi son soxla nga jàpp leen tëj leen kon àdduna bi ñëpp ay dof lañ mais dof du nit lañ wax. dof nit la wala du nit. ah, ah te boo ko reyee tëdd kaso mais ñun jàppee wuñ ñu nit man keroog sama kos laa laal bu mool génn sama gaale di jalone samay jalone ñu naan ma tey moom doo dof ma am lu ma xam nga ma am lu ma métti te dof yee daa ko sañse fii barki alxuraanu karim dof yi ñoo xam nga ñun lépp lu ñuy def dañ koy defee ak rigueur ñun ñëpp lu ñuy def duñ ko cof dañ koy def ci digg bi buñ dee sañse dañuy sañse mu nooy buñ la meree dañ lay wax ne dañ laa mere. buñ la bëggee dañ lay wan ni dañ laa bëgg moo tax jàmmi dof neexul ayu dof neexul dof bu kontaanee mu ëpp bu fooyee mu ëpp. Mm-hmm. moo tax ñun suñu yoonu bopp la ñuy jël dof boo gis moom kese ànd dem. Mm-hmm. mës ngaa gis ñaari dof yi ñooy ànd di dem. ah. ñaari dof yi ànd di dem. waaw. Ah, en ñi may gis ñoom benn kese la solo la ñuy dund ñun sonaluñ kenn. ba pare nit ñu nañ bàyyi dof yi ñuy ëmbal. fii kuñ fi ëmbaloon sa yaay du la neex dofi ay yaayu jàmbur lañ. dëgg la fii ku ñu fi jàppoon tànku jàmbur dagg ko benn dof bu reyee nit nga dégg ko fu ne. am solo la. pour kan pourquoi ñoom bu ñu defee dof yi dara kenn du ko dégg Macky Sall moom dof jomb ko mun naa nekk dof pourtant moom mën naa am doom bu dof wala rakk bu dof wala leneen bu dof mais pour pourquoi yow boo amee sa doom nga nekk parent mu dof loolu moom moom da koy nëbb di ko takk di ko yóbbu feneen doo ko wane te bu nekkee milliardaire nga jàpp ko wane ko. am na solo mais parents yi tamit dañoo irresponsable irresponsable la ñoo xam ne irresponsable. loolu baax xam nga ni ñu fexee nekk ay responsabilité jàpp nit ñi xam lii yàlla moom moo leen ko teg dama cee wax ba bëgg dee sama gars yi ci ginnaaw wax nañ ma ni ma loolu bul ci waxati. mais message waaw mais tey bu ma koy wax nit ñi dañ may reetaan dof yi boo leen di kaasal dañuy dem ba jàppee la dof mais yàlla baax na ba man bi ma nekkee xale ba léegi sax ñëpp dañoo jàpp ne dama dof. mais man tamit coow jibul maa ngi koy dund maa ngi koy gérer ba sama heure dee jot ma dee. mais man li ma nekk xam naa ko. jaajëf mhm. sa mbapat sànq lañ toll woon Pikine Eumeu Sène exemple lay joxe ñëpp tey xam nañ ni mbapat moo tax gars yi ràññee ko Ama Baldé soog yow sax mbapat nu man ñun mbapatu tournoi yi lañ daan bëri. mbapat tournoi yi lañ daan bëri parce que ñun bi fi mbapat di mel comme ni muy mel nii. Mhm. ñun fekk na ni boobu kon ñun am nañ niveau boo xam ni ñun gox bi ñu dëkk mënuñoo bëre ñi fa nekk. waaw kon ñun dañ daan génn ay tëngeej ay barñi ay ay ay fu nekk bëri nañ fa ay mbapatu cëw leen fu nekk dem nañ fa xam nga bëri bëri nañ biir Pikine tamit bëri nañ mbapat yu ne mais melul woon kon mbapatu nome yi ni mu demee woon. sa mbapat tojoo wax da ngaa man amul fu ma tojul toj moo tax ma ni la bi mbapat yi di xew yenn xew yi man fi ma nekk kenn amu fa niveau bu am bi ma war a bë ku ma war a bëreel. léegi yow sa mbapat ñu laal tuuti toj nga tojoo. bëri nga ak bëri yoo xamante ne instant bi ñi ngi lëmbe làmb wala soit bëri yoo xamante ni peut être yaa ngi naan noo kii de daan naa ko mais moom moo la gën a kii nekk oto am na. waaw ñi ma ci gis nag bëri naa ak euh, Sokosim. bu Tëngéej Sokosim bu Tëngéej nañ Mbapat Tëngéej Mbapatu Thiaw leen Thiaw leen la buntu kër Mbaye sax Diop. bi fa doon am. nañ fa Aline Seye am na maa ngi koy nettali rek Sokosim yéen ñaar ah? ko daan. ah daan maa ko daan. Mbapatu buntu kër Mbaye sax jóob Uh-huh. waaw. am na ma doon <laughs> man mosuma ngande nag xam nga man samay mag man nii laa mos tollu toll quoi man maay caat man sama mag yi dañoo nàmp desaluñ ma dara looloo tax ma tuuti ko samay mag yi damaa juddu fekk ñu nàmp sama soowu yaay yëpp après moo tax maa ngi ñoom ñi ci juboo sax bëriwuñ ñetti mag laa am ñaar ñi wuñ kenn gi laa jubbool parce que dañoo nàmp desaluñ ma dara waaw léegi soo sim am na benn mbapat maa ngi koy nettali Karbala mi barki démb rek benn mbapat Tyson boo xam ne nii tamit bëre naa ci fekk dama ñëwoon ñu ni ma soose bu faas moo duggoon pikin di daan booy di toj mbappat bi ma toog ba mu yàgg man sa benn copain jibi ma ne ko tey mu ne ma waa ma ne ko nañ dem mbapat ba ma toj ko dégg naa soose moo fa nekk ku fa ñëw mu daan la nañ dem ma daan ko mu ne ma yow yaa way daan ma ne ko nañ dem ma daan ko jour boobu mu ñëw yàlla def fekku ma soose ci mbappat bi après ñuy bëree tournoi ba mu des ñun ñett. man ak Aline Seye 2 ak Aline Seye 2 bu Guédiawaye ak benn copain am après ñu ñu ñu bëre ba final après moom mu ne du bëre ak man quoi Aline Seye 2 sama gaañan la woon waaw parce que boobu noonu fekk nañu xamante nii nag musuma dem seen kër musul ñëw suñu kër mais fekk nañu xamante nii di kii quoi après moom xam naa ngorom mayu ko woon mu bëre man te man ak moom ak beneen copain am ñoo fa desoon man copain am boobu sax xamatuma kan la ci mbëri après mu may kooku mu dem. après moom moo may kooku maa kooku ñu bëri après kooku moom moo ma daan final sax. waaw ak ay Moussa Ndoye bokk nañ ba pat mais jotu ñoo bëre. boo waxoon yaa daan Moussa Ndoye dama. jotu ñoo bëre Moussa Ndoye laaj ko mbapat boobu nan la demee. mbapat boobu man maa fa doon toj ñun ña man maa fa desoon man ak moom ak beneen gaayan bu nekk suñu écurie ñun ñoo fa des après ñu tirage leen ñoom ñaan ñu bëri après mbapat bi toj. parce que moom bu bëree ba pare man la waroon a bëreel quoi xam nga affaire yooyu. bëri na ay mbër yoo xam ne nii tamit bëri naa ñoom waaw. Euh, wax nañ ko sànq nga ne ëpp na ko nga dugg ci ban année. waaw. nga def ñaata combat. def naa ay 11 euh, combats. Hmm? xam nga sànq def. parce que man gis naa sama palmarès sax bi may bëreeg Ada Fass. Mhm. ñu bëri def loolu def ay ay 7 gis naa ñu def 7 combats. 14 euh, victoires 3 défaites. waaw moom laa gis moom laa yaakaar quoi. waaw mais damaa yaakaaroon ni 7 combats nga wax. waaw mhm. euh, mhm. sa premier combat yaakaar loolu. sama premier maa ngi waroon a bëre Kati Junior. mooy Kati Junior bi bër bi bëre woon ak Ama. Mhm. Kati Junior bi bëre woon ak Ama moom laa njëkkoon a bu bëreel mhm. après mu ñëw ba ci biir stade bi ma am taap. ma amee taap après ñoom ñu jox ko victoire. après ci laa fa bëri jógee bëri naa ak ay xalifa ndooy. Mhm. ba sax bëri nañ gaynde bëri nañ gin gi neew. bëri naa gaynde gin gi neew. bëri ay mbër yu bëri ah après bëri naa ak maalaw bu plateau. booy joola xam nga bu faas bëri naa ak ay mbër yu bëri yoo xam ne nii tey man après déggaatuma leen sax. premier combat ñaata lañ la fayoon. sama premier combat ku tëggoon loolu. Gasson. ok père Gasson. Ah, moo ko tëggoon. ok boobu quatrième laa jógee quoi. Mhm. Onde bokk na ci xale yoo xam te dañ laa ràññeewoon. Mhm. muy peut-être Pikine wax dëgg yàlla avant ñu ay soq. dañ la ràññee woon nag bu baax ngay dem di dem di dem di dem à un instant dem nañ sax suma juumul ñu dem ba ba euh, ñu koy nuyuwaale au passage muy Siteu boobu la soog a dugg si. Cheikhou Chérif. kan mooy alxalifa Siteu Cheikhou Chérifu damay waat moo indi woon kaamil bi waaw naan ko bekaay bekaay damay waat nee nañ damay gis bekaay bekaay naan ko eh booy eh. booy bul fi waat Siteu naan bi Siteu ba tey waatul nag. billaahi ba tey waatul. mais Bécaye moo ko bu ko waxuloon bul waat sax Siteu a neex ci wàllu boppam Siteu. yow barki Serigne Saliou Mbacké. nga dem ba benn instant ñu bëgg a tëgg sa combat ak Siteu. Onde nag temps yooyu da xewoon de. wax dëgg yàlla moom da xewoon. man du ma xewi suukar du bàyyi neex bàyyil naan ma da ngaa xewoon mel ni damaa xewi fi mu toll nii man léegi laa gën a xew. Onde bàyyi ma ñëw. non bu ma nit parce que boo ma nee temps yii da ngaa xewoon day mel ne. aja dikkal. sa combat ñu dem ba ne ondu combat ak Siteu booy bi dafa bëri macha allah Siteu moom ñëpp xam nañ kuy bëreeg moom doo nelaw doo yandoor ndax ci mbooloo ak ci neexaay ñu jékki-jékki ondu delloowaat avance ba naan ay liñ fay Siteu moo ëpp loolu yëpp ci tappale pour bañ a bëreeg Siteu rek ndax sa combat ak Siteu yooyu bëree woon ak moom. <laughs> yow man tapalakat nga ma teg quoi. Ah ko doon mais da nga tey yow da xewoon. Mm-hmm. parce que waaw ku xew ku xew mën nga mën ngaa am lu ne. man mënumaa comprendre gën a xew Siteu ñu koy fay loo xam ne nii. Ah, waa yow ba nii maa ko gën a xew. man du xewi wax naa la suukar laa suukar du bàyyi neex. mënumaa gën a xew Siteu ñuy fay ay Siteu ay 1 million 500 di ma fay 500000 ma koy jël di ko bëre. ku la 500000 temps yow lañ fa lañ kii euh, million 500. Siteu lañ ko fay ñoom nëbbuñu ko sax Siteu 1 million 500 lañ ko fay. fay ma 500000. après ñu ñëw man leen yokkal leen ma un million sax mu ëppalee ma 500000 parce que 500000 kii 3 kii 1 million bénéfice kii dafa bëri de différence. dafa bëri ba pare jamono jooju ma nekkoon ci ay cas yu yoo xam ne nii tey sama yaay mi ngi feebaroon xam nga aw ma jàppale man léegi la ma nit di may sama combat bi passé laay mi du ma bàyyi ma fen ci la nit ma sa yëkkati cinquante mille may ma ko man samay moyen bopp laa doon demee sama yaay moo doon jël xaalisam di ko def ci man man nit mënul taxaw ay mille francs nga may may ak ay deux mille cooli cooli li muy bëri bëri man léegi la nit nit mës a ñëw dama may ay kii dama doon entraîné ba pare jël mburu ak suukar ak ndox lekk ko te nit du ko xam parce que man li ma ci làmb dafa metti man li ma daj ci làmb dafa metti te musuma taxaw yuuxu man dama doon dox ñu naan kii du mbër ak lu nekk dégg naa ko kii du mës a nekk mbër kii duñ ko tiitaroo tey jii Siteu boo gisee benn instant mu yéene ko jàmm loolu ci la bokk ndax moom dafa déparé ci zéro quoi te man xam naa li ma doon dégg nii moom tamit da koy dégg quoi moo tax tey man chaque jour damay bëgg di ko ñaanal yàlla moom muy avancé de am jàmm dama koy sànni xeer nag ndax sama adversaire la. Siteu sa adversaire. waaw dañuy bëre. force dooley mbaam buñ bëreewul fii wax naa ko dinañ bëre yomal xiyaam dinañ dem ba nit ñu taxaw war a taxaw siraat yàlla ni Onde ak Siteu. ci biir géew bi yàllaa ko bind suñu jë dañoo war a bëre. loolu moom daf ko judduwaalee man ma judduwaale ko. waaw maa ngi koy ñaanal jàmm ak wér. fépp fu mu mais yàgg yàgg dañuy bëre loolu force la far la force dooley mbaam. bu ñu bërewul fii dinañ bëre biir bàmmeel wala ñu bëre keroog yombal xiyaam mhm. waaw ragal nga dee torop nga naan yàlla na yéex mhm. corona bi moom xam naa ne bu màmmee ba fekk la fi di nga xam yàlla na yéex ak yàlla na gaaw ñëwal ci say question Onde léegi yow kon euh, différence boobu moom moo taxoon léegi après sa combat ak Siteu amaato waaw looloo taxoon ah nga jël kan après ma bëre ñaas ñaas ma bëre ñaas ñaas ñu bëre combat mbaam metti ba combat bi jeex ma am benn avertissement. ñu jox ko victoire. waaw mais nag combat boobu ni mu demee la woon tamit. parce que ñaas ñaas dañ ma waaj waaj bu yàgg boo xam ne nii xam nga moom sama gaañ la sax léegi. Mhm. waaw lu yàgg parce que moom promoteur bi. Mhm. moom la bëggoon a tëgg. la woon. xamatuma sax promoteur bi. Mhm. xamatuma sax promoteur bi. ma bëre ak moom ay affaire yu métti dal ma ci. xam nga mu muñ ko santee ko yàlla bëri fas yéenee ñëw pour remplir sama contrat remplir naa contrat bi ba contrat bi jeex nag wane wu ma ci benn ñàkk jom wala benn ñàkk fayda ba yàlla def li li muy def après garaawul quoi yàlla may ko ndam ñu yëkkati loxoom daanu ma nag après làmb dafa jeex ñu yëkkati loxoom après garaawul quoi man ma kon ne dundaat sama dund. nga bëreeg ñaas ñaas ond bi fay. déedéet après bëre naag li dégg mais après dafa fayoon. après damaa bëri ak ma déglu ma ñaas ñaas on bu fay. waaw mooy c'est-à-dire dangaa bëri ak ñaas ñaas. ñaas ñaas daal la. nga dem ci Libidor après mu demee. après tamit lamb jooju noonu magam moom moo ko tëggoon. Ah. magam yow xamoon nga ne magam moom ko. xamoon naa ni magam moo ko tëggoon. waaw kon kay on bul waaw mais la lamb man la man damaa yàgg bëri ay man dama la bëgg a wax ni man fi ma jaar dafa metti man nekkuma tey nit ñi dañ may gis nii naan ondu mii nii naa wala nël ku fa sa jaar ku fa sa rakk jaaroon wala sa mag wala sa leneen nga robi ko barki naa Mohamed man carrière bu métti laa def ci suma life man aw ma ma mag bu ma jàpp sama loxo gide ma aw ma kii man sama famille sax dañ ma seetaan ci làmb ndax lan dañoo bëggul làmb ci wala. bëgguñu ko taluñu ma sax laajal ñi man komba day am jeex doo fa gis kenn koo xam ne bokk naa ak moom sama mag bu jigéen bi doo ngay ñëw ci heure togg añi balaa maa bëgg dee ba ñibbi di jooy ma ko bu fi ñëwati. ndax la bu may génn kër gi day jooy quoi xam nga bu day jooy. ma ko bu fi ñëwati xam nga. bu dul loolu amul kenn koo xam ne nii daf may taxaw. waaw man li may dem yëpp sama ngor ak sama coom laay demee. di ko dund yàlla tamit mi ngi def mi ngi may suturaal. waaw mooy Libidor nu mu demee combat bi. après Libidor boobu moom moo ma daan. moo tax ma sa onde dafa fay. non fayul parce que déedéet. xamal lan mooy onde bu fay. xamal lan mooy onde bu koo xam ne nii moom munul bëre wala mbëri soxlaatuñ ko bëggatuñoo bëreek moom. mais ba nga bëreeg Libidor onde métti woon na après de. non man maa toog ni bëreew ma. mais demoon na benn instant nga bëgg a bàyyi waaw parce que xam nga moo tax man bëri ñoo xam ne nii ñoo nekk ci làmb ji man ñemewu ma gàcce ko ok man nekkuma fi di rafetal par palmarès su kenn di bëreek diw ma lay daan wala di diw bëreek diw ma lay daan man ku may bëreel ndam moom moo ma yóbbu ci yow. man chaque semaine laa la wax wala chaque mois ñi ma toogal duñ ma bàyyi ma fen promoteur woo ma ni ma sa combat diw lañ bëgg mais man ku may bëreel damay xam ni kii war naa bëreeg moom wala warumaa bëreeg moom. parce que am na ay mbër yoo xam ne daa am ay boy yu nekk sama écurie yoo xam ne ñoom ñoo war a bëreeg ñoom. te man ñooñu bu ma jëlee seen avance. Mm-hmm. tey jii bu ma leen daanee du ma yóbbu fenn. te dootuñu ñu bëreeteeg buñ ma daanee dootuñu ñu bëreeteeg boo yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sama écurie. mais après ñaata at nga toog naa 4 ans xaw ma 5 ans bëreewoo yëgu ma sax nag. ndax yëgoo ko. làmb fayu ma fayu dara man li may dund ak li may lekk li may naan ak lépp jëlewul jógewul ci làmb. parce que retard sax trop. ñoo xam nga ñan ñan ñoo te ñooñ sax retard ñu ñu ngi dund seen beneen dund mooy ñu fi jugee parce que tey mi àdduna moom tardé amul. non si xam nga tax na da nga <laughs> mooy da nga amoon tur. waaw pourtant man man xam la laay bañ amoon tur man ba léegi damaa am tur. waxal. da nga xawoon a gëm cinq nga toog ko kenn gisu la fenn ngay gunge ay mbër kese mais après lool lan la def ci yow après ñu jékki-jékki benn instant on sax ñu ne day bàyyi bëre lu waraloon loolu noonu promoteur ñoo la tëggul wala adversaire yi ñoo la wuy lan moo taxoon loolu. waa xam nga tey làmb man dama ko defoon passion quoi bëgg-bëgg bi ma ciy dugg mais tey dama tolloon maman yoo xam ne sama copain bii ci kaw laay daf doon xuloog man sax ti wutal ma liggéey. daf doon xuloog man bu ma waxee mu ne ma da ngaa war liggéey da ngaa war a bàyyi def nii ba am ne mais des fois damay bëgga a topp moom li mu wax parce que lépp lu mu wax njëriñ la quoi mu koy bëgg a topp mais bu ma demee ba mu yàgg. bu ma déggee yenn baatu ginnaaw yi ñuy waxaat rek. comme yan comme lu nekk comme li ngay wax rek ondu na bàyyi bëre ondu amul doole ondu lii xam nga may dégg yooyu. après am na leen luñ sax. ondu mag la. xale jigéen yi nga topp. non jigéen moom man kenn kenn mënu ma koo kenn mënu ma koo waxal. mag la waaw jigéen moom jigéen moom man bugguma ko quoi. ndax la ko man xaw ma lan la mais man moom jigéen tuuti rek waaw ay xool nii. jàpp sa feeling tuuti yooyu yaa ma gën xam après bàyyi mu sedd. nga ni euh, maa ngi lay tooñ parce que xam nga moom boo nekkee am na fooy tollu mbër leneen lañ lay waxal maa ngi naan affaire jigéen nga ne bëggoo jigéen tuuti rek nga ci bëgg kon on xanaa fas yéene woo am soxna. non instant bii ñu toll ni wax naa ko waa xam sa cosaan yi de temps yii passé dañoo tegle woon di takk jabar man leen ne ngeen fexe ba ku fi takk sa jabar na ko téye ku fi fase sa jabar naa ko takk. jigéen mënul sëy sëyaat la mën yow. benn jeeg wax na ma ko mu ne ma Onde bul yàkkamte jigéen mënul sëy ay booy jolof yi toog yi yëpp ay zoro ak ñoom ñëpp wax naa leen ko naaru sogaas ak soq ak jat leeg bàyyiwuma kenn nee naa leen ko fi fase sa jabar naa ko takk ci écrit bi sama yoon nekk sëyaat la mën jigéen ñi sëy ba pare nga bu ma ci am baax na man tuuti rek nee naa la jigéen bugguma ci lu bari tuuti man tuuti rek tuuti la tuuti jigéen tuuti rek ay affaire yooyu comme ay yaa ma gën xam mm. nga euh, nga def cinq ans. waaw ah. année balance. on du defaat benn retour boo xamante ni ñu bari dañ koo tiitaloon nga jël xale boo xamante ni dafa mën a bëre xew bëreek ay ndaanaan on du jël aada aada pourquoi aada faas. Ah, parce que bi may bëreek aada faas man xam naa ni daan aada faas du ma yóbbu fenn. ndax la parce que man ñi ma war a bëreel du aada faas quoi. mais ba ngay jël aada ñu bari nañ la risque nga jël ndax boobu dafa nekkoon ci yoon. waa xam nga ku xamul moom xamul. man xam naa man maay kan. man ñëpp mënuñu woon a gëm loolu parce que damaa toog ay at yu bëri bëreew ma Ada nekk ci yoon mën a bëre tubaar fa kàlla macha allah am doole xew am ñaan am ay jàppale. man yo billaahi bu baax. mais man damaa waxoon suma retour mooy bëre retour bu saf laay bëre. Fallou njaay bi ma woowee di ma wax combat bi ma fekk ci kaw ci élection yi may campagne di lu ma def sam poos ñu waxaale ci oto bi mu jubboo ma ñibbisi mu yónni Matar Ndiaye ma dem jëli xaalis bi kenn jëliwul maa jëli maa def lépp encaissé ñëw toog sama gars yi jàppale ma ma daj ci ay coono yu leen laay mi fajar sax fajar ñoo doon ànd heure bu ñëwee ni ma dégg naa diw nee na ma ond na da bàyyi bëre dem defi fecc ond nee na ma ne ko laay bis bi jotagul nañ bàyyi ba bés ba rek xam naa ni fi mu toll nii lu ma la wax doo ko gëm mais nañ bàyyi ba bés ba karbalaam yi dañoo ànd mu ni ma ond bugguma defet fekk Modou Lo Balla Gaye bëre ba pare mu ne ma man bugguma defet bu fekkee ni Ada Fass da ngay dem foofu di loxal ak affaire yooyu man du ma ànd ak yow wax ma ko man ma toog sama buntu kër ndax man damaa am ay nawle ma ne ko barki Seydina Mohamed mi ngi nii toog du ma bàyyi ma fenn kii mooy Karbala mooy Karbala ma ne ko du ma moom du ma bàyyi ma fenn sama nawle la ma ne ko barki alxuraanu karim bu arbitre soufflé dama koy duma dama koy daan. foo dafa nekk loo xam ne nii day nelaw ci man dama ñëwoon rek jour boobu pour yeeku ko ma ne ko billaahi wallaahi taalaahi bu arbitre soufflé maa koy duma maa koy daan du bëre du xeex mu ni ma ah ma ne ko waaw mu ni ma nag boo ko defee ma rayal la sama xar bi ñuy wax ba daa benn xar bu mu tuddee Cissé Lo mais li mu waxoon yëpp defu ko ci Karbala mi du waxkatu dëgg. parce que jour boobu laa ko xam. rayal ma siise loo mayu ma xar. Ah, dëgg mu may ma siise mu rayal ma siise loo siise loo mais defu ko daa jaay xar bi joxuma ci dara. def na lu ñaaw. combat bi nan ngeen ko bëree bi. waa arbitre mhm. ne ko te ma ma ne ko tegal fii arbitre soufflé ma dox ci kawam. mu reculer ma doxaat mu reculer ma jam ko gauche xam naa ne daf may songu. mu song ma ma tëru ko téye ko léegi nag après billaahi wallaahi taalaahi yàlla na ko yàlla defal jaamu Ada Fass booy bu yaru la mais dama ko bëggoon a dóor ba mu tëdd. ndax la. parce que jour boobu jour wane sam bopp la woon. dóor ba mu tëdd Ada Fass barki alxuraanu karim bi ma téye ci parce que moom bi may fàqat boo gisee li tax ma ñëw maa ngi kor loxo bi di yóotu téere bi parce que xam naa ne moom bëggul ma jàpp ko. Ada Fass ko bu la jàpp fenn. mais moom na jàpp parce que signature bi wax na ma ko ni ma bu ma la jàppee làmb ji jeex ma ne ko boo ma jàppalee nag ma bu ma jàppalee sax làmb ji jeex ma ne ko barki alxuraanu karim dinañ bëree bëree bëree bëree ba maag yow boo moytul di nga dem seete mu ne ma ñaanalu ma la yàlla lool ma ne ko billaahi te barki alxuraanu karim dama ko tël naroon a téye ko ba mu tëdd billaahi wallaahi taala gars dama leen ni combat bi dama cee bëgg a wane sama bopp sama gars yi def réunion ñoom laay ak Chérif ak gars yëpp ni ma bul ñu yàpp bu fekkee ni da nga koy daan na mat stati rek 30 secondes 30 secondes. sama combat ak Ada Fass la aayam ak mën a bëreem ak lépp dugaatal nga xool ko 30 secondes la fi arbit bi di soufflé ba fi ma koy daane. kenn du yow ndaanaan nga. waaye yow man ma xeet ndaanaan. nga pare ci Ada Fass nga amaat coow nag wax dëgg yàlla na nga xewaat nag. booy yi pour tourner jox ma onde jox ma onde onde moom benn combat boo xamante ni sa combat nongolo. ginnaaw suba bu ñu nee taxaw na ginnaaw waat suba ñu ne combat bi taxawul ñi naan taxaw tax sa combat ak Ndongo Lo lan moo ko lan moo ko kii lan moo tax combat boobu barrage bi ci kan la nekk ci ondu la nekkoon wala. waaw Ndongo Lo la boo xam ne nii dama ko nawloo trop mu nekkoon champion boo xam ne nekk ci yoon. waaw nekk ci yoon dafa nekkoon ci yoon. tey jii bi mu duggee ci kalaaf bi daanu daje nañ diin mais bi mu fa fekk mbër yi mu fa fekk yëpp. mën naa ni nuyu leen sax nuyu bu baax mais man dafa ñëw ba ci man jox ma ni ma ondu. ma ne ko ndongo mu ne ma waa ma ne ko làmb ji de ko séddoo gars yi nekkul yow kase yow da ngaa bokk ci làmb joxal cër mooy première tam bi ci kii bi ñu waxtaan ci noonu mu ne ma waa ma estimé ko mu jox ma cër trop cinq défaites di mu am man neexuma quoi. yi mu six ah. man neexuma quoi. parce que moom dafa bokk ci làmb dafa am départ bu baax xam nga biñ ma waxee waxu ndongoloo tamit mu ah, waxoon nañ ma ko avant moo dugg ci kalaaf mais après moom mu dem jëli dugg ci classe bi bëriwaat ak yeneen mbër. après tamit biñ ma ko waxee ma ni leen man Ndongo Lo mbër mu ma estimé la te bëgg naa bëre moom bu fekkee ni man bëre moom moo da koy may coow. man bëgg naa bëre moom. bu ko yàlla mayee ndam moom mu dem bu ma yàlla mayee ndam tamit man ma dem. xam nga après ma waxtaan ceeg Fallou jubóowuñu ci prix Fallou Ndiaye. biñ jubóowulee ci prix tamit après ma ne ko garaawul parce que man mënu maa jël Ndongo Lo mu jële ci six défaites. man ma jóge ci victoire xam nga après mu ñëwaat nangu ñu ma cee fay xaalis te lamb jooju boo ko daanee tamit fi lay yóbbu du sori. Mm-hmm. waaw looloo tax ko